kër par kër wala nga jël quartier par quartier. wala koñ par koñ wala commune par commune wala ville par ville. wala région par région wala département boo dem Ousmane Sonko moo fa ëpp nit moo fa ëpp mbooloo seen xol la ñu ko def yi nga waxuma la ay xel wala xol moo ko xam ne jaral na la bakkan jaral la jaral la alal Ousmane Sonko moo ko am ci askanu Sénégal bu nekkoon Ndakaaru laa wax de. ba woo leen comme ni mu woo waa Ziguinchor ne leen maa ngi dem Ziguinchor dañ naan ko bul dem bu ñëwoon fii nga xamante ni mooy Mbacké daal ne dajal leen ba pare ne maa ngi dem bërëb sàng dañaan ko bul dem ndax fu mu dem ñëpp a koy bëgg mu toog foofee ndax moom fu mu nekk foofu day am leer day am xéewal day am yokkute waaw foofu day dund Ousmane Sonko day dundal suuf day dundal suuf fu tànkam ba tege moo gën a dund fu tànkam tegewul maa la wax lii billahi wa taala beneen beneen baal ma àggal dama ne journaliste sénégalais yi sénégal yi ngir yàlla même lu mën a xew bu ngeen a xool seen intérêt yi xool leen intérêt peuple bi ndaxte peuple boo xam ne war ngeen a bàyyi journaliste yi. non non non du ma leen bàyyi xam nga lu ma leen bàyyi parce que kon damay ñaan ngir yàlla ñu bàyyi xel peuple bi jeunesse boo xam ne dañoo sonnoon tumuranke amuñu information bu baax xamuñu lu seen réew ba xëy-xëy bis am ku ñëw indi leen information yu wér kenn seen réew wax leen ana lan moo téye seen réew lan moo tax nga gis jeune boo xam ne daneen ba am 30 ans 40 ans du mën a tabax kër du tekki du am alal mu wax leen lu war a loolu lépp jafe-jafe yooyu ngay dund lu leen ko teg wax leen luy solution bi tax ñu ñu jàng ko xam ne kii incha allah rab bu ñëwee coono yëpp jeex dana gis seen boo xam ne am 25 ans commencé tabax kër daw tawal oto gis ko am 30 ans di tabax ay ay ay entreprise ko am 40 ans da ngay tekki ba doo xamante foo wér dëkk bi am xaalis neex journaliste yi bëgg a iñaanee askanu Sénégal xéewal googu ñu war a am pour lan jeunesse boo xam ne dañu seen espoir dafa jeexoon ñu jël ay gaal di mbëkk ak i bato di dugg ci géej gi dem seen yoon xëy xëy xëy gis waajoo xam ne ñëw na ngir sàlla fas yéene jël li Sénégal moom bàyyi mu des biir Sénégal li ñëpp bokk ñëpp jot ci. alal ji des biir Sénégal jeunesse bi tekki ñëpp gis seen bopp ñëpp am xëy am liggéey jeunesse boobu gis loolu conscient jur ngir défendre loolu pour bëgg a àgg foofu noonu yow nga taxaw lank na ñu ñun duñ fa àgg dafa mel ne iñaane sa peuple la dañu soxoree askanu Sénégal dañu soxoree jeunesse bi day mel ne bëgguñu jeunesse bi tekki day ne bëgguñu jeunesse bi réussir dañu mel ne bëgguñu jeunesse bi avancer pourquoi boobu iñaan mais nañu bàyyi jeunesse seen seen espoir bi ñu am muy Ousmane Sonko mais ñu bàyyi ko mu ànd ak ñoom bu ñu ba fal ñu xool ah. billaahi wa taala bu ñu salee Ousmane Sonko. dina gis dina gis dañ boo xam ne 30 ans lay am tekki am kër am oto ah. Hmm. sa way du ku jënd iPhone mu jënd iPhone bu ko neex di sonn rafet parce que boobaa Sénégal yi am xaalis bu bare bare bare bare. dërët dërët loolu mais façon foofu jëm noonu kenn mënu ko yàqal. Euh, bi nga xam ne Ousmane Sonko wax na ne moom lay mooy yoon boobu lay jaaree dem Dakar fas yéene koo def ay caravane est-ce que dem def ni mu daan def. non même pas par jël jël avion ni cëpp Dakar. non non non non dama ne Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa yor xel. yaa ngi dégg. Ah. te moom ni muy dox yëpp bil ma lay doxee. yaa ngi dégg bil ma xam nga xikma mooy lan mooy xool na lan mooy waral sa yokkute ak nga gën a yaatu ak nga gën a jëm kanam yaa ngi dégg stratégie boobu nag bu fekkee dikkal na ko mu xam ne moom li ci moom mooy mu wàccaa ci terrain bi gaaral askanu Sénégal lan mooy programme am laaj leen ñoom gox ba ñu nekk lan mooy seen jafe-jafe fas yéene ñëw Dakar loolu système bu am solo bu baax la man dama koy rafetlu bu baax loolu nag wuruñ ci am beneen gis-gis bu dul di ko rafetlu ak ñaan ko yàlla mu agale ko jàmm parce que Sénégal la am na droit bëgg a jaar yëpp fu mu jaar mu jaar fa dëkk bu mu leen bëgg dem dëkk dem fa te fu mu demit incha allah rabbi na ko waa Ziguinchor taxawoo lañ ko taxawoo gi nga fi bu ñëwee Mbàkke Tuubaa gii hmm. ko ba moom xam na ne carrément waa Mbàkke ñu ko taxawu parce que dañ ko bëgg caaxaani wuñu ko dañ ko gëm hmm. si sëñ bi dafa am solo man sëñ bi imagine toi ku yor ku am boru problème ordonnance treize mille francs boo xam ne mu amoo loo ko jëndee nga yor segu deux milliards te nangu woo laal dërëm xaalis bi moom ko xaalis askan bi la du ma ko laal nga dem ñu ger la millions yu bari yoo xam ne boo ko jëloon tey doo am problème mu treize mille nga ne du ma ko laal xaalisu askan bi la ndax doylu ndax ragal yàlla sëñ bi kii kii kii sëñ bi kii sëñ bi kii kii kii kii leneen la kii leneen la sañ bi ñu tënk mbiru am na loo xam ne dañ dañ dañu bàyyi caaxaan gis nga Ousmane Sonko dañ ko war a jàpp dañu ko war a aar dañu ko war a sàmm insha allahu rabbi te jeunesse bi ma gis nii du conscient lañu xam nañ bu baax li ñu am. te jar na lu nekk. waaw euh, nga sàmm ko. bu ñu tegee mbiru Ousmane Sonko fan yi gis nañu mbër yi def conférence de presse. Euh, tamit mel nañ ne euh, wax ne dañuy jàppale Macky Sall ak tamit gis nañu dalaloon leen foofu ca palais. yi dañoo war seen askan mbër yi dañoo war seen askan ñoom tamit. Ah. waaw xam nga dañoo war seen askan. gis nga boo nekkee star wala nga nekk leader. wala nga am loo doon. te la nga doon. ña la ko def di sa peuple di sa askan bi nga dëkkat sa koñ wala sa askan bi nga bokk sa réew chaque jour da leen war di jox nopp chaque jour da nga leen war di da nga war di bay bàyyi xel loolu mooy waral doo mukk doo mas sa jaay tëdd seen kaw di lekk seen kaw alal xam nga lekk seen kaw alal mooy lan mooy tur boobu ñu la jox doole jooju la askan bi jox nga jël ko askan bi am naqar au lieu nga dem ànd ak ñoom seen naqar di ko naqarlu waaye nga jaar ca gannaaw dem di lekk alal mel ne ku leen mbëllee jox ngeen ma pouvoir ba pare ma waraat leen loolu ku nekk war na ko rus moo xam footballeur bi la moo xam musicien bi la moo xam mbër mi la kon nag mbëri ñoo def gun lii mbëri dañoo wor seen seen waa gox dañoo wor seen ay supporters ndax ñoom ñëpp defuñu gis nañu seen ay supporters xam ne ay ndaw ñoo ci ëpp ndaw yooyu tey ñoom bu ñu amee làmb ndaw yooyu ñooy nekk di sonn ci biir mbedd mi ñooy jaayante war ay moto ñooy jaayante di daw ñii di lang ci kaar yi ngir fësee dem làmb ja bu demee lu ñu am dagee ko billet ngir supporter leen bu ñu bu ñu daanañ toppaloo si ñoom seen kaw seen oto yi dem ba seen biir kër yi ñu ngi seen étage bi taxaw di leen tàccu ñu am am bës mbër moo ñu fay ko millions yu bari xamul tax ndax bëri ay supporter supporter yooyu mooy askan bi mooy say moo moo sa gox mooy sa koñ mooy sa dëkk waaye nga xëy gis na ñooñu am nañ leen naqar seen biir réew ni ñu yoree seen ar réew baaxul ñoom seen ay droit dañ ko bafoué kenn respecté seen ay àq ñuy naqar la loolu gis benn leader bu ñu wax Ousmane Sonko di ko soutenir di ko dooleel di ko jàppale ngir bëgg seen situation bi changé parce que li ñu dund métti na yow mbër moom nga xam ne askan bi ñoo la may li nga def au lieu que nga ànd askan bi ci lu ñu wax kenn ñoom am nañ naqar nga lànk dem bàyyi leen fa xanaa nga dem ànd jeeg koo xamante ne si lu leen dal kooku moo ne ko teg kon mbëri dañu war seen askan dañu war seen ay supporters dañu war seen waa koñ dañu war seen waa réew man loolu laa ci wax amu ci leneen waaw euh, arrestation Serigne Saliou Gueye journaliste waaw moom de réew mi de moom mi noonu waaw moom mi ngi noonu journaliste yi moom wax dëgg yàlla man damaa dégg ñu président mu ne euh, euh, ci ayam kenn du fi arrêté journaliste. waaw waaye fi mu ne nii moom kéemaan la. waaw seen usage gi dañuy xam Pam Dia jaar na fi Babacar Touré jaar na fi. waaw journaliste wax foofu jigéen boobu Coro Mandela ah Moustapha Diop kon nañu ko fee. ah Pape Alé Niang euh, dem na ba dem na ba génn. Hmm. tey sëñ Saliou Guèye la. yàlla ko yàlla génn fa mu nekk. ku mel ni Serigne Saliou Gueye am euh, nekk professionnel ci métier mi nekk professeur di di di jàngale euh, li nga xam ne mooy journalisme euh, aussi tamit bu nekk ki nga xam ne moom mooy rédacteur en chef bu journal bi di yor yor ku jàmbaar def 15 ans ci métier dama ko doon seetaan dama ko doon suivre ñu naan ay du journaliste ak non dama ko daan suivre dama ko daan suivre ci seen TV mais ku jàmbaar la ku bëgg réewam ku bëgg askanam ndax gis nañu li mu doon wax yépp ngir éviter la ak alerte ak di yee askanam ngir ñoo xam gis nga nit ñi képp koo xam da nga am voix ba wax ñu dégg la war nga veiller ci da jéem a yee sa askan ndax Ousmane Sonko bëgg na bokk na bokk na ci lu mu am lu ko may moo yee askanam dafa ñëw lire lecture Sénégal politique Sénégal